wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi sante yàlla subhaanahu wa ta'ala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwaat ak yéen ci suñu émission bi nga xamante ne nii moom lañuy amal te moo di ni alquraanul karim muy solution bi nga xamante ni moom lañu ñu yàlla subhaanahu wa ta'ala jox ngir ñu doxal ko ci kaw suuf ñu tànn ay aaya ci alquran bëgg ko ànd ak yéen suñu jotaay yi weesu jëloon nañ aaya yu nekk ci suuratul an'am tey jii ñu ñëwaat ak yéen ci yeneeni aaya ci beneen saar tey jii ñu ngi ñëw yeen ci suratul raad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 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار mbokk yi comme niñ ko déggee ci aaya yooyu yàlla subhanahu wa taala dafa indi ay mbir yoo xamante ne nii moom mooy defar société bi aaya yi ma leen wax nii muy suratul Ra'd ak suratul An'am bi jël bii pasé ak yeneen aaya yi ñu war a jël ci saar yii di ñëw moom mooy al muqawimatul asasiya lil xayaatil ijtimaaiya noonu la ko siit xut bu tudde borom velal parce que aaya yi yàlla daf koo indi ngir defar dinañ ci xam dara léegi yàlla posé na question yàlla posé na la question yow mi seetaan yow mi déglu yàlla nee na afamay yaalam annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa ama Yalla neena baham ba xam ki xam ki xam lu bax diko def diko wax di wetal yalla subhanahu wa taala don jaamu ay xeer xi xam ni ndegate yo ay xeer yu du deg du gis la don jaamu mu bayyi ki dan bokale yalla subhanahu wa taala mu bayyi ki nga xamanteni ni dafa jëf-jëf ju bon mu bayyi afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaq loolu mom moy deug yalla neena ba xam koku man na yam kaman huwa ama ak ko xamanteni ni da gumba waye gumba gi yalla subhanahu wa taala jublu ci ku ay beutam muru dedet ki nga xamanteni ni da fay jaamu ay xërëm di jaamu ay xeer di dem ci di faset mbah di bokale yalla subhanahu wa taala di jëf-jëf ju bon koku yàlla subhaanahu wa taala daf koo jàppeku silmaxa parce que li mu waroon a gis muy dëgg gisu ko pareen saa ñu wax nit ni ko wan naa la dëgg mais gisuloo ko ma wax la dëgg mais nanguwuloo koo dégg gis nga man la wax nanguwuloo koo dégg wala ma wax la dara nga am noo ma tontu man la sëñ bi jox ma nopp bu baax bi bi maanaa kaddu gi génn dugg na sa nopp waaye dégguloo ko yàlla nag nee na ba xam ki dégg li ma wax yem na ak ki nga xamante ne nii déggul li nga xamante ne nii moom laa wax yàlla daal di tëje aaya bi wax ju neex wax ju xamante ne nii rek wax ju yaatu la te moom mooy innama yatadakkaru ulul albaab ay innama yattaiz yàlla nee na gaa yi nga xamante ne nii ñooy waaru gaa yi nga xamante ne ñoom ñooy jàjju gaa yi nga xamante ne nii ñooy pare bàyyi lépp ngir ñëw topp njàngalem yàlla ak njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy gaa yi am xel mooy gaa yi am xel kon aay bi ak wax ji soo xoolee tuuti ci biir am na lu ñuy tudde liñ naan gaaruwaale daf cee amaale gaaruwaale yàlla mu ngi gaaruwaale gaa yi nga xamante ne ni nanguwuñoo baax parce que yàlla bu fekkee nee na li ma indi muy dëgg ñi koy jël ñi koy accepté mooy ñi nga xamante ne ni dañoo xam dëgg nangu koo topp waaye du ñi nga xamante ni dañoo gumba mu daan ni gaa yi am xel dëgg ñoom ñooy waaru kon ça veut képp ku bañ njàngaleem yàlla subhanahu wa taala yow amuloo xel moo tax yéefar yi bu yonent bi sasam daan jàng aay def leen daan dugg dañuy xam ni kii ñoom lay waxal parce que bu yàlla ne innama yatazakkaru ulul albaab yàlla bu ne gaa yi xellu gaa yi waaru mooy ñi nga xamante ne dañoo am xel ñoom ñee bañ waaru ñoom ñee bañ a jàjju kon aw ñu xel mbokk yi yàlla subhanahu wa ta'ala dafa am benn façon doxalin woo xamante ne nii moom lay doxale alquranul karim mooy pareen saa yi su waxee mel ni mbir mu mel ni nit xamuñu ko mu daal di leen di xamal ñooñu ñooy ñan masalan nee na innama yatadakkaru ulul albaab yàlla nee na gaay yi am xel ñooñu ñooy waaru ñoy jàjju mu mel ni nit ñi dañ koo poser question ni ko waaye yàlla ñan ñoo am xel ñan ñooy ñiy jàjju yàlla daal di commencé lim bi ci njëkk mu daal ni alladina yuufuuna bi ahdillahi wala yanquduuna almithaq te moom mooy ñaareel bi ci njëkk mooy alladina yuufuuna bi ahdillah mooy gaa yi nga xamante ni dañuy matale kóllëre gi dox seen diggante ak seen borom mbokk yi kóllëre gi dox seen diggante ak seen borom ak kóllëre gi dox sa diggante ak nit ñi ñaar yooyu fekk yaa ngi ciy dox xamal ni ku am xel nga julli gi ngay taxawal woor gi ngay woor natt asaka gi ngay natt azaka taman ko aj maka gi ngay defe ji taman ko ah, jamu gi ngay jaamu yàlla subhanahu wa taala loolu noonu yàlla moo def képp ku ci taxaw yaa ngi sàmmante ak kóllëre gi dox sa diggante ak sa boroom waaye tamit kadalika sa diggante ak nit ñi la nga fasante ak ñoom kóllëre gi nga fasante ak ñoom mbaa lépp loo xamante ni ni yàgg nit yéena ko fasante ba pare nga daal di koy sàmm kooku ku am xel la dafay dugg ci gaa yi nga xamante ne ni ñoom la yàlla wax ni innama yatadakkaru ulul albaab yàlla nee na bokk ci gaa yi am xel dëgg mooy ñi nga xamante ni nii wala yanquduuna al mithaq mooy gaa yi nga xamante ni nii duñu dog loo xamante ni dañ koo fas ba pare baatu naqd moom la yàlla subhaanahu wa taala indi xam ngeen su ma nee fecci guum gi dafay yomb mooy kon mën nañ koo fasaat mais gis nga bu ma nee naqatul xabla bi maanaam mooy dama ko fecc ba pare jël xeer dëbbat guum gi ba mu yàqu ba nga xamante ni nii guum googu kenn mënatu koo fasati baat boobu la yàlla utiliser mooy mbir moo xamante ne nii yemuñu ci dindi ko kase dañu koo dindi ba pare yàq ko daal koy yàq mooy baatu naqaba moom la yàlla indi mom la yalla wax ni wala yanquduuna al mithaq moy gaa yi nga xamanteni ni duñu fecc kóllëre taw duñu fecc kóllëre wallahi al azim julli jot nga tok baña julli wor ñew nga baña wor am asaka nga bañ ko def mana dem makka demulo yow yaangi fecc kóllëre ci doxon sa diggante ak sa borom parce que yalla limu la sas limu la teg tegon nako asaman ak suuf ak montagne ñu daal di bañ yow nga daal di koy jël kon tey jii bu fekkee da nga koo bañ sa veut dire que ni yaa ngi fecci kóllëre ga nga xamante ni nii fasante woon nga ko ak sa boroom mbokk yi yàlla subhaanahu wa taala ba tey mu ngi continuer di lim jikko yi nga xamante ni nii moom la gaa yi am xel di jikkowoo mu wax ni walladina yasiluuna maa amara allahu bihi ay yuusal bokk na ci ba tey gaa yi nga xamante ni dañuy jokk la leen yàlla digal ñu jokk ko yàlla noonu la waxee walladina yasiluuna ma amara allahu bihi an yuusal gaa yi nga xamante ni dañuy jokk li ma leen digal ñu jokk ko lan lañu yàlla digal ñu jokk ko mooy mbokk gi waaw ah. mbokk ñu sàmm mbokku gi di ko jokk di ci dox di dem di seeti mbokku gi wa di ci wax mais ñu ciy wax wax ju baax wa di leen dimbali ci suñu poos bu ñu ko amee loolu lépp ci jokku mbokk la kon mbokk yi bokk na ci jikko yi nga xamante ne nii yàlla subhaanahu wa ta'ala bëgg na ko ci nit ki bëgg na ko ci jullit bi muy jokk ak mbokk wa yaxshawna rabbahum waaye tamit bokk na ba tey ci jikko yi yàlla subhaanahu wa ta'ala bëgg nga ragal ko ragal gu ànd ak cofeel ragal gu ànd ak cofeel mooy alxasya yaa ngi dégg bokkul ak alxawf yaa ngi dégg mooy nga bëgg yàlla subhaanahu wa ta'ala ba pare ah ragal ko ragal gi du question que danga ngaa comme ni di ragale gaynde daw déedéet mais yàlla da koy ragal ba pare di ko dëgmal kooku yàlla subhanahu wa taala rek moom moo ko am wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna suu alxisaab bokk na it ba tey ci jikko yi nga xamante ne ni yàlla bëgg na ko ci ñépp mu koy xaar ci société bi mu koy xaar ci mag ñi di ko xaar ci ndaw ñi di ko xaar ci góor ñi moom mooy dañuy ragal régler gañ leen di régler ëllëg mooy lu ñuy def rek ñoo ngi koy bàyyi xel ndax dañuy xalaat bis bu jotee bis ba nga xamante ne nii ci lañ leen di taxawal di leen régler benn par benn wa yaxaafuuna suu alxisaab moo tax umar ibnul xataab radiallahu anhu dafa daan wax ni xaasibu anfusakum qabla an tuxaasabu dee leen régler seen bopp balaa ñu leen a régler tey jii su ma la joxoon 1000 francs yónni la marché mu leer la ni soo ñibbisee dinaa la laaj dërëm bu nekk fan nga ko dugal bu ci benn dërëm réeree dinaa la mbugal mbugal mu metti soo demee di jënd lépp loo jënd di nga xam ñaata lay jar bu fekkee weccet bi des na di ko indi yàlla bu yemal xiyaamee noonu lay def ak ñun daf ñoo yónni ci marché jox ñu xaalis bu yemal xiyaamee il faut ñu indi weccet wala bu ñu indiwul weccet it dinañu laaj xaalis bi fan lañ ko dugal jëf yi ñuy jëf wax yi ñuy wax yooyu yëpp yàlla subhanahu wa taala moo ngi ñu ciy xaar wa yaxaafuuna su alxisaab mbokk yi ba tey ci jikko yi jikko yi nga xamante ni ni yàlla subhaanahu wa taala wax na day ni moo war a nekk ci gaa yëpp su ko defee société bi dox su ko defee kër yi jag koñ bi baax bu ko defee ñu am ngërëmal yàlla subhaanahu wa taala mooy walladina sabaru btigaa wajhi rabbihim gaa yi nga xamante ne ni dañuy muñ dañuy muñ te yàlla rek tax mu nekk ñaari façon muñ muñ gu ñëk gi moy li la yàlla digal joxe gi ngoy joxe nga muñ ko nala yu neex lool nga daal di jug daal di japp daal di julli daal di tëddaat ndaysan lek neex lool yalla subhanahu wa taala ne la bul lek woral nga daal di bayyi daal di wor and ci ak muñ ta yalla subhanahu wa taala tax muñ gogu ngay muñ asabru ala taat muñ ci top yalla subhanahu wa taala waye kadhalika ah muñ ci li nga xamante ne nii moom mooy di ay mooy yàlla yàlla subhanahu wa taala moo la tey tere riba nga muñ xeex ak sa bakken ba njaay njënd mi nga dugg doo ci lekk riba mukk yàlla subhanahu wa taala moo la tere sàngara nga xeex ak sa bakken ba doo ko naan yàlla subhanahu wa taala moo la tere njaaloo nga xeex sa bakken ba doo ko def kon yi la tere muñ gi koy muñ ak yi la digal muñ gi koy muñ yooyu yëpp yàlla subhanahu wa ta'ala daf la ci fay moo tax mu ni walladina sabaru butigaa wajhi rabbihim muy benn wa aqaamu sola gaa yi taxawal julli yàlla ne na bokk na ci gaa yi nga xamante ne dañoo yeewu gaa yi nga xamante ne nii seen xol jàjju na gaa yi nga xamante ne nii bokk nañ ci ñi may gërëm ëllëg ñi may faye kër gu kër gu kër gu màgg te muy àjjana gaa yi nga xamante ne nii dañuy taxawal li nga xamante ne ni moom moo di julli wa aqaamu salaa la yàlla wax lan mooy iqaamatu salaa mooy ngay taxawal julli ala dawaam mu ànd ak sax bu fekkee bu la neexee nga julli tey suba doo julli wala heure bu la neex julli yow heure boo ko joxee baax na wala dajale ay waxtu toog ba guddi nga daal di boole lépp daal di fay na nga xam ni baat bi yàlla utilisé ci arab muy iqaamatu salaa yow duggagoo ci iqaamatu salaa luxatan mooy ki nga xam ne dafay taxawal julli ala yaa ngi dégg mais bu fekkee tey boo jullee suba doo julli mbaa ginnaaw suba doo julli wala heure bu la neex julli wala di ko sàggane booy jullee di ko jullee nu mu la neexee ñooñu la yàlla ñaanaloon ni leen mbugal mu tar mu ngi leen di xaar fa waylun lil musalliin yàlla nee na mbugal mu tar yàlla nee na xur wu rëy ca biir safara ma ngay xaar gaa yoo xamante ne ni dañuy julli ah gaa yi tiit yaa ngi dégg gaa yi julli dina leen mbugal yaa ngi dégg yàlla subhanahu wa taala ba mu waxee fa waylun lil musalliin daal ni alladina hum an salaatihim saahuun mooy gaa yi nga xam te dañuy sàggane seen julli bokk ci jikko yi ba tey bokk na ci jikko yi nga xamante ne ni yàlla subhaanahu wa taala nee na gaa yi am xel dañ koy mbubboowoo dañu koy sol te moom mooy wa anfaqu mimma razaqnaahum sirran wa alaaniya mooy gaa yi nga xamante ne ni dañuy dépenser seen alal ci yoonu yàlla leen yalla jox lu mu tuuti tuuti ñu bokk ko ak seen waa kër li leen yàlla jox lu mu tuuti tuuti ñu bokk ko ak seen soxna li leen yàlla jox lu mu tuuti tuuti ñu bokk ko ak seen doom waaye bu ñuy génne di dépenser alal ci yoonu yàlla par yenn saa yi ñu def ko ndànk ba kenn du yëg ñu defe ko loo xamante ni ni na yonente bi waxoon ci xadis ba ni bokk na ci gaa yi yàllay keral yawmal qiyam bis ba nga xamante ni ker du am waa joo xamante ni nii bi muy saraxe loxo ndijooram di joxe loxo càmmoñ bi yëgu ko kooku noonu lay saraxee wala par yenn saa yi mu génn sarax boo xamante ni nii nit ñi dinañ ko gis lu mel ni ki ku taxaw ci buntu jàkka di yelwaan nga génn sa poos joxe nit ñëpp nga lay gis loolu tamit yàlla subhanahu wa taala bëgg na wala imam ju taxaw daane daam kuy sàkku ndimbal lu wax am nga lamb sa poos joxe boobu ñëpp a nga koy gis waaye def ko te yàlla subhanahu wa taala tax boo demee ci benn euh, tafsir euh, bu euh, tafsiru Saïd Hawa wax na it tamit kazalika ba sopp nañ lu mel ni azaka soo koy génne mu nekk loo xamante ne nii dafay nekk alaaniya ñëpp xam ne diw génne na azaka def an tuhuma balaa balaa ñu lay tuumaal wax ni diw de alal ji ko yàlla jox du génne azaka waaye même da koy génne te yàlla tax sax waaye teewul kazalika na nekk loo xamante ne nii lu ñu xam la ba ñu xam ne diw alal ji ko yàlla jox mu ngi ci génne azaka loolu gis-gisunu Saïd Hawaala ci euh, téere tafsirul quraanam mbokk yi ba tey bi nga xamante ne ni moo ko juróom-ñeenteel ndax ku bàyyi xel bu baax di nga gis ni jikko yi ma fi lim yépp yàlla subhaanahu wa taala wax ko juróom-ñeent la bi ko juróom-ñeenteel moom mooy wa yadra'uuna bil xasanati sayyi'a allahu akbar mooy gaa yi nga xamante ni nii saa yu ñu defee jëf ju ñaaw saa yu ñu juumee ba tarxiis jëf-jëf ju ñaaw ca sensé la ñuy jug tuub daat ci teg jëf ju baax waaw daat ciy teg jëf ju baax waaw yàlla subhaanahu wa nag nee na ah ñooñu day ñooñu nga xamante ne nii ci loolu la ñu nekk ulaika lahum uqbad daar yàlla nee na ñooñu dinañ leen faye li nga xamanteni ni mom moy kër ga ñu gëreum kër ga nga xamanteni ni mom moom la ñëpp dëgmal kër ga nga xamanteni ni tay ji jii képp kuy am julit fa nga bëgg mu mujjé nek sa kër té mom modi aljana kër goga amna mbir yu fa yalla wax amna yo xamanteni ni ay banex la yo xamanteni ni yalla lim nako tudd ni dina ko fay gaay yi mbubboo juroom ñenti jikko yi ma fi lim yoyu